ñuy sax ak di bëgg ak di yéene suñu sax suñu bëgg suñu yéene ci yow mii lañ koy ñaan ñu la koy dagaan ñu la koy yalwaan yokk ñoo dimbali yokk ñoo teg loxo yokk ñoo def taali santaat nañu bu baax a baax a baax a baax xam naa yàlla saa ñaan yàlla ربا يغفر لك بخير